Euh, fii mooy Njaxat Njaasaan euh, tey jii nag fii euh, chauffeur yi chef chauffeur transport en commun dañu xey euh di ñaxtu di wane ni sen mécontentement parce que ñom dañu japp ni restriction restriction yi chef d'état bi def dafa yag parce que néna ñom ñu ngi sen 3 troisième mois té alors que parallèlement amna ño xamné xam may nañ len ñuy circuler

na oto yeb delu, donc ils ont fait retourner tous les véhicules ah, xam naa ne nag ñii moom vraiment imagi yi euh, ngi wane ah, degré imagi yi rek moo lay wane vraiment seen degré de mécontentement donc fii Njaxat Njaasaan moo fi le xewee. Mhm. mais suur ñaata ñaata ñaata at lañ leen gaare fii. Mhm. ñaata weer lañ leen gaare fii xoolu leen benn dërëm tee leen fi. Mhm. ah léegi ñun dañoo war a bàyyi ñu liggéey wala oto yi bokk gaare mais camion yaa ngi daw war ngeen yaa ngi daw Jakarta yi transport. dañ koy suur cette part lañ yor ñun dañu bàyyi ñu liggéey. dëkk xam nga xam dëkk seen place la ok waaw eh, bu ngeen sañoon daal li ñuy bàyyee tali bi pour ñeneen non baare bi baare bi ñu gënaluñu ñun dañuy bàyyi ñu liggéey wala ñu wax ñu wax ju leer ñun ñun loolu moo ñu may baar gënaluñu waaw man mii ma xëy sax am moo teewu ma télé bi mhm. ndax len neexu ñu daal baar bi neexu télé la yàqul mhm. waaw ndax ay punu boo ko taalee fii day indi kàmm mhm. te ñun gënalu ñun ñun day def fu ne dem ay Casamance ñu taalee pour ñu duñ neex ñun moo tax ñun ñu neexuñu mais nañ ñu bàyyi ñu liggéey wala ñu jox ñu ñu oto bàyyi ñu oto tere ñu bàyyi ñu ngi bëgg a dee waaw sonn tay di bëgg a dee ñetti weer yàlla ñun ñëpp corona nañu ndax amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan moo tax ñu corona ndax ko amul loo lekk barke sëñ a na ñoo xam ne amuñu a a a a ñuy fay par weer mhm. mu leen di fay par weer ñuy dugal seen i poos ñun mbaadoo la dina amuñu dara dara dara dara dara ñu tëj ñu suñu biir kër yi mhm. ñëpp a feebar mhm. dañoo sonn dañoo tàyyi yàlla xam na ne ñëpp a génn bu na ñëpp